Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Second tour de la présidentielle française. On en parle avec nos invités dans cette édition spéciale euh, sur TFM. Madame Fatou Sagnasso, bonjour. Coordonnatrice de la République En Marche au Sénégal, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également avec le docteur Boniface Sambou. Bonjour. Bonjour. Économiste, vous étiez déjà sur ce plateau hein, lors de, de, la soirée électorale du, euh, du premier tour. Euh, vous allez nous dire comment vous avez vécu euh, cette campagne euh, d'entre deux tours. Et puis, euh, on va parler beaucoup d'économie également. Euh, la France et le président sortant Emmanuel Macron qui s'est beaucoup engagé sur le financement des économies africaines. On va en parler Et puis nous sommes avec le professeur Ousmane Khouma. Bonjour professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation spécialiste des relations internationales. On a beaucoup parlé ces, ces derniers mois et ces dernières années euh, d'un New Deal entre l'Europe et, l'Afrique, principalement entre la France et ses anciennes colonies. Qu'est-ce que la réélection d'Emmanuel Macron ou l'élection de, de, Marine Le Pen peut, peut changer, euh, peut apporter euh, à cette envie d'émancipation sous toutes ces formes euh, réclamées par une certaine jeunesse africaine. On va en parler également avec euh, vous euh, dans cette édition spéciale présentée en tandem avec l'ami Souley Bonsoir. Bonsoir Chérif. Merci Souleyman. nous aurons euh, en ligne de Paris tout à l'heure euh, Abdoulaye Sissé qui est notre envoyé euh, spécial. Selon un sondage IFOP pour Jeune Afrique, les électeurs d'origine africaine se sont exprimés en faveur de Jean-Luc Mélenchon au, au, premier tour. Là pour le second tour, normalement le choix est vite fait, euh, Madame euh, mais on, verra tout cela tout à l'heure, sauf si l'on s'appelle Tanguy euh, David. Hein. Mais enfin, c'est un, un, autre débat. En tout cas, les, les, les, les Africains euh, d'origine, euh, les, les, Français d'origine africaine ont voté. On va d'ailleurs euh, aller à, à, Paris suivre ce reportage réalisé par notre envoyé spécial Abdoulaye Sissé qui a suivi euh, une une Française d'origine africaine. Reportage sur son parcours de vote réalisé par Abdoulaye Sissé. Comment vous sentez-vous ici tout Écoutez, tranquille, très bien. C'est jour de vote, jour de choix. Donc je vais voter. Mais vous savez que vous avez le choix quand même. Oui, j'ai le choix entre deux personnes qui n'étaient pas en fait, forcément mon choix. Donc <laughs> j'ai le choix en fait, entre deux non-choix. Ok. C'était comme ça. Donc, et, et, votre, choix n'est pas encore fixé. Là, vous y allez mm, euh. je ne pas encore. Franchement, là, jusque-là, j'ai encore euh, mais on verra en fait. J'ai du euh, chemin à faire. Donc, euh, là, on vous accompagne pour réfléchir. <laughs> Parfait, bah, Sur son cœur balance encore. Macron, Marine Le Pen, ça cogite fort dans la tête de Oh. Je pense qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Non, mieux. apparemment. Je vais juste sortir ma carte là. Bonjour, Merci. Ouais. Alors, et c'est tout Voilà. Soulagé J'ai fait mon devoir. <laughs> C'était rapide du coup. Citoyenne, oui, parce qu'il n'y a pas grand monde, donc euh, tant mieux, hein, ça va vite. Et ça augure quelque chose de bon, à votre avis Bah, de toute façon, je ne sais pas trop, parce que au, au euh, premier tour, en fait, fin d'année a eu le plus faible euh, taux de vote. Donc j'espère qu'on n'a pas en fait remis ça encore. <laughs> Mais bon voilà, j'espère que vraiment que les gens sont venus très tôt euh, voter. Et puis on verra quoi. Donc à 20h, on aura le verdict. <laughs> vous, vous, est-ce, est-ce que définitivement, vous pensez que 20h, vous ferez youpi ou vous ferez bof bah, Je pense que dans tous les cas, je ferai bof. Quoi. <laughs> dans, dans, dans, tous les cas, je ferai bof. Donc euh, voilà. Après, j'espère que les gens seront comme moi et feront le choix de la révoque. Parce que c'est vraiment le, le, le choix que, que j'ai, en tout cas moi, et j'espère que les autres feront pareil. Et surtout, euh, il me semble que tu as, tu as quand même ramené quelque chose comme un trophée. un trophée, oui, si on veut. Après, c'est pas très euh, glorieux non plus comme trophée, dans tous les cas, mais... Euh, tu peux nous montrer ton trophée Le choix que je n'ai pas fait. <laughs> ok. Marine Le Pen, le choix que tu n'as pas fait. Voilà. Bon, on n'en saura pas plus euh, pour le choix que tu as mis dans l'urne. Ah bah, hein? le suspense, le, le vote Ça reste non? toujours Macron ou le vote nul. C'est ça. <laughs> on sera à 22 le choix des Français. Et pour euh, les femmes, moi, en tant qu'une Française, j'ai fait mon choix. Nous verrons. Abdoulaye Sissé qui a rencontré euh, Aïssatou Diop, une électrice euh, d'origine africaine euh, qui a donc choisi le bulletin Emmanuel Macron, si on regarde en tout cas le bulletin qui lui est resté entre les mains. Ce corps électoral, je me retourne vers vous, Madame Fatou Sanya Sow, qui a, en tout cas selon les sondages, avait choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Là, je le disais à l'entendre de mes propos, normalement le choix serait vite fait, mais ce n'est pas forcément gagné quand même. Euh, non, effectivement, ce n'est pas un choix euh, mécanique, j'allais dire. Ça ne va pas être un report mécanique vers Emmanuel Macron, parce que ce, ce vote vers, euh, massif vers euh, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit au premier tour, oui. est un choix qui s'est porté sur un parti d'extrême gauche. Donc c'est un choix qui, depuis euh, deux semaines maintenant, nous interpelle. Et euh, on a vu dans cette campagne de second tour, Emmanuel Macron donnait beaucoup plus de, de gages, beaucoup plus de signaux Euh, vers euh, la gauche, j'ai envie de dire, signe qu'il avait entendu ce, vote que je dirais peut-être un peu plus un vote protestataire. C'est beaucoup des voix qui, étaient à l'époque dans le Parti socialiste, qui est un parti républicain, qui aujourd'hui, on l'a vu, s'est complètement effondré à, hauteur de 1, euh, 1,5%, mmh. qui aujourd'hui s'est retrouvé dans euh, le choix de Jean-Luc Mélenchon par euh, ce, cette logique de vote utile. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément une adhésion à l'ensemble des éléments programmatiques de M. Mélenchon, qui, pour qui il faut avoir le plus grand respect pour sa carrière politique. Ce qu'il faut dire, c'est euh, quel que soit maintenant le report de voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon vers euh, Euh, Emmanuel Macron, c'est quelque chose que nous avons entendu, c'est quelque chose sur lequel il faudra maintenant euh, travailler davantage sur les questions sociales, euh, sur les problématiques des banlieues, sur les questions de ruralité. Mmh. C'est toutes ces questions-là sur lesquelles, effectivement, on, l'a vu pendant ces derniers mois, Marine Le Pen mmh. a eu un discours de communication plutôt habile. Euh, a beaucoup parlé de pouvoir d'achat. Absolument. Et les gens en ont presque oublié la dureté Qui de son programme. de prédilection euh, que, que sont euh, l'immigration. Euh, et, et, et j'en passe. On, on, on, va, on va revenir vers vous euh, parce que votre candidat également, Emmanuel Macron, s'est lancé un peu tard. Dans, dans la campagne, oui. on lui a beaucoup euh, reproché cela. En réalité, il a commencé le 11 avril, au, au lendemain du, du, du, du, premier tour. Euh, mais c'est intéressant peut-être de s'arrêter sur l'électorat, euh, le corps électoral euh, africain, euh, en tout cas d'origine euh, africaine. professeur Rouma, pourquoi porter ce choix sur Jean-Luc Mélenchon ah, Merci un peu le propos, peut-être que plus de 20%, on ne peut pas dire que ce soit un vote protestataire. Je crois que Ils s'appellent eux-mêmes les Insoumis et ça va être très intéressant de voir euh, comment ils vont voter vrai, vrai. Au, au, second tour. Si on se referme au terme exactement. D'une part, ils sont insoumis donc, euh, et, et, et, même leur leader ne dit pas clairement voter pour euh, Emmanuel Macron, il dit pas une voix pour Marine Le Pen. Ça peut vouloir dire restez chez vous, votez blanc. Faites attention à cela. Non, je crois que il y a eu une réelle adhésion au, au, au programme de, de, de Jean-Luc Mélenchon en l'absence euh, du, du, du, parti, du Parti socialiste. Alors Et pourquoi, pourquoi euh, Pour plusieurs raisons. Ah, vous parliez tout à l'heure du, du New Deal, de ce rapport qu'il y a Euh, à l'Afrique. Oui. Et Jean-Luc Mélenchon est extrêmement habile. Euh, plus que de l'habilité de la communication, c'est une conviction très profonde. Oui. Il appelle à une normalisation des rapports. Et ça, nécessairement, ça parle aux, aux, aux binationaux, aux Africains. Je veux dire, celui qui a le discours, euh, comment dire, le plus sincère, le plus franc, le plus courageux, le plus habile sur les questions d'immigration, sur les questions de l'islam, sur ce que doit être la puissance de la France Alors, qui seul, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon. Et on aurait eu un un second tour absolument fabuleux, parce que j'aime beaucoup la communication politique aussi, oui. si on avait eu Emmanuel Macron face à Jean-Luc Mélenchon. Jean Mélenchon. Donc, ce n'était pas du tout un vote protestataire. Oui. Je nuance. En tout cas, pour les binationaux, mmh. les Africains, c'est une vraie adhésion à la constance de Jean-Luc Mélenchon qui ne fait absolument aucune concession mm. sur ces questions de normalisation des relations avec l'Afrique. Rappelons-le, Jean-Luc Mélenchon qui a aussi gagné euh, ici à Dakar au, premier tour, mais rappelons-le aussi euh, ce soir, les deux personnes en compétition euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Sur Hélas. ce point, Suleymanian, est Macron Macron et Marine Le Pen, euh, lequel des deux candidats a le plus de chances de bénéficier justement d'un éventuel euh, report, eu égard euh, à la sincérité, à l'engagement de Jean-Luc euh, Mélenchon, parce qu'on a vu que tous les deux candidats ont essayé de grappiller un peu sur les thématiques. Emmanuel Macron sur planification écologique, mmh. euh, Marine Le sur les questions d'immigration, de rééquilibrage des relations entre la France et des pays tels que les pays africains, par exemple. Suleiman, à l'évidence, Emmanuel Macron résultats, nous le dirons tout à l'heure, il faut, faire, il faut être très prudent, mmh. mais euh, des électeurs qui votent pour Jean-Luc Mélenchon seront beaucoup plus enclins s'ils se déplacent pour voter. Hein à voter euh, Emmanuel Macron que, que, que, que, Marine Le Pen. C'est évident. Je oui. dire. Euh, elle l'a très bien dit, Marine Le Pen a réussi ses prouesses d'édulcorer un peu ce qu'est euh, le Front National, devenu le Rassemblement National, mmh. d'être devenu politiquement correct à la faveur de l'invitation de Éric Zemmour qui a complètement décomplexé en France la parole raciste. Tout à fait. Ça a rendu Marine Le Pen normale, mmh. hein, presque. Et euh, lors du débat euh, du, du, du, second tour,

n'est pas automatique. Mmh. Le taux d'abstention est à surveiller. Tout à fait. Et je pense que c'est celui-là

Est-ce que tout cela peut jouer en faveur de Marine Le Pen, docteur, euh, docteur Sambou Mais à, à, à, première vue, on peut comprendre déjà que l'attitude de Marine Le Pen par rapport à euh, cette campagne, mais c'est bien sûr de rebondir sur euh, les échecs du passé, de retrouver sa place et de pouvoir conquérir euh, cette nouvelle France dont elle rêve. Oh. Euh, moi, je pense déjà qu'entre elle et Zemmour, peut-être qu'il y a eu un jeu qui a été en faveur de Marine Le Pen, naturellement, parce que le discours de Zemmour est un discours qui est un peu radical. Marine Le Pen a essayé. Bon, je le dis parce que c'est pour éviter un peu de, de, de secouer l'arbre. Mais sinon, Marine Le Pen a pu profiter un peu de la position de Zemmour pour vraiment s'engouffrer et essayer de convaincre les Français qu'elle n'est pas aussi radicale, hein, qu'elle a une vision qui, naturellement, s'oriente vers une France pour les Français, mhm. ça c'est clair, c'est sa position. Mais est-ce que réellement c'est cela l'objectif de la France aujourd'hui en termes d'ouverture Je pense que euh, les Français eux-mêmes jugeront. Mhm. À l'heure actuelle, il serait prématuré de, de dire que Macron a vraiment pris les devants. Marine Le Pen a joué le jeu jusqu'au bout. Moi, je pense, quand je l'écoute dire, euh, parler du pouvoir d'achat des Français, c'est insister surtout sur euh, cette situation qui est une situation difficile que traverse le monde, mais surtout les Français. Et on peut comprendre, hein, on peut comprendre qu'elle également euh, soucieuse, n'est-ce pas, du bien-être des, des Français, comme Macron l'est également. Mais sinon, elle a encore de l'avantage parce qu'elle n'a pas encore fait ses preuves, elle a envie de les faire et les Français pourront bien euh, décider de lui accorder. Ce qui est intéressant et un peu paradoxal, au-delà des questions euh, franco-française, le pouvoir d'achat et éventuellement la question de la relation ou euh, euh, de la position de la France par rapport à l'Union européenne, elle fait quand même que, c'est ça le, le, paradoxe, que la candidate Marine Le Pen a été plus agressive que le candidat Emmanuel Macron sur la question quand de la relation avec l'Afrique. Euh, Ce qui nous ramène d'ailleurs à la question originelle du vote d'une certaine catégorie de, de l'électorat, euh, toujours attaché quand même à ses racines, etc. Euh, c'est un paradoxe. Autant sur le débat, parce que c'est Marine Le Pen quand même à la fin de la portion qui était consacrée à la politique internationale, qui mhm. signale qu'on a parlait de tout sauf de l'Afrique ouais. et qui, quelques jours auparavant, lors d'une conférence de presse sur sa vision internationale, ah, tout le monde sait, elle a, euh, elle a un peu grappillé sur la question, mais c'est la seule à avoir posé le débat et à être alors, dans le fond. Allant jusqu'à proposer l'élargissement euh, du Conseil euh, de, sécurité et qui a cité le Sénégal, comme candidat potentiel. Oui, je pense que Marine Le Pen fait de la démagogie. Euh, on ne va pas s'étendre là-dessus et elle a, a, piqué notre attention très bien, de meilleure manière que Éric quand il a parlé des Sénégalais il y a quelque temps. C'est de la démagogie dans un sens comme dans l'autre. Je crois qu'Emmanuel Macron euh, a beaucoup parlé d'Afrique pendant tout son quinquennat.

Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut mettre à son crédit. Euh, il porte euh, comme une priorité euh, ce New Deal dont on parle entre l'Union européenne mmh. et l'Union africaine. Il le dit, et je, je le répète, c'est une priorité pour le président Macron. Mmh. Et dans ces équipes, je vous prie de croire que euh, l'Afrique est largement représentée et que la diaspora a des positions aujourd'hui dans l'exécutif et dans le législatif qu'elle n'a pas eu avant. euh, que ce soit sous le Parti socialiste ou sous l'UMP. Donc ça, c'est des actes concrets qui, moi, euh, me parlent plus que, effectivement, euh, le fait de ne pas avoir euh, évoqué en premier avant Marine Le Pen. elle, a complètement raison. Emmanuel Macron a fait plus qu'en parler lorsque Marine Le Pen l'évoque. il rappelle à juste titre qu'il a été le président de la Ve République à avoir le plus visité euh, l'Afrique. c'est que euh, c'est une préoccupation chez lui. Donc, Maintenant, est-ce qu'il le fait de la meilleure des manières euh, Ça peut se discuter. Ça peut se Alors, quant à Marine Le Pen, des allusions euh, sur l'Afrique, y compris la nouvelle composition du Conseil de sécurité, où notre pays et son président, etc. Bon, là, c'est un peu l'hommage du, du, du, vice à la vertu. Dire. On se passerait bien de, du point de vue de, de, de Marine Le Pen. Euh, sur, euh, et, et, et c'est ce que je disais, c'est Zemmour qui a décomplexé mhm. euh, la, la, la question et ça montre toute la démagogie quand même de ce qu'est le Front National, devenu le Rassemblement National, etc. Nous n'avons pas besoin du soutien de, de, de, Marine Le Pen. Ah. On sait son point de vue euh, du point de vue des relations internationales, même au niveau de l'Union européenne, a fortiori les rapports avec, avec l'Afrique et, et, en particulier l'Afrique subsaharienne musulmane. Donc ça, c'est pas un problème. Que l'Afrique soit une préoccupation constante euh, de la France en général et d'Emmanuel Macron en particulier, c'est un fait. Mmh. Um, Est-ce que c'est de la meilleure des manières Ça se discute. Mmh. Um, ça se discute parce que um, il, il y a des habitudes comme ça qui sont très difficiles à changer. Alors, mm. lorsque euh, vous êtes si jeune, euh, né après les indépendances, un peu comme notre président, ce qui explique leur alliance stratégique, mm. euh, que vous n'avez pas connue, comme qui dirait la France de papa, etc. Bon, Bien évidemment que c'est naturel d'avoir un, nouveau souffle. Et il y a eu de, de bons discours fondateurs, des voyages, etc. Euh, mais lorsque vous convoquez des chefs d'État africains pour les sommets quasiment de s'expliquer sur un sentiment anti-français, je veux dire, il ne viendrait pas à l'esprit d'un chef d'État africain de convoquer un quelconque français sur les propos tenus par Zemmour ou, ou Marine Le Pen. Mm. Ça, c'est. Vous voyez, il y a des habitudes comme ça, des, des, des relents qui sont très difficiles mm. en France à enlever. On n'y peut rien. à euh, 20% depuis euh, 2002 en France. Euh, les Français jouent à se faire peur. Euh, on va oui. regarder avec beaucoup d'attention le score de Marine Le Pen. On ne peut plus dire que ce soit un vote protestataire. Donc ça, c'est devenu un fonds commun français. Emmanuel Macron aurait gagné à être plus catégorique sur ces questions et ne pas prêter euh, le flanc. Le La dernière maladresse en date, c'est son point de vue sur les sanctions euh, de la CDAO vis-à-vis -vis du Mali. Emmanuel Macron n'a pas de leçon à donner aux chefs d'État euh, africains, de la même manière que les chefs d'État africains n'ont pas de leçon à donner aux chefs d'État européens. Tant bien même sur le fond, on peut être d'accord avec lui quand il dit ben, vous prenez des sanctions, en plus vous les invitez. Bon, moi je n'aurais pas fait comme ça, mais je respecte. ce paternalisme-là, euh, c'est pas ce qu'on attend d'un président aussi jeune, qui montre manifestement euh, son désir de rompre. Mais voilà, il y, a ce fond commun-là. Et là, c'est aux Africains d'aider les partenaires français de bonne volonté à normaliser les relations. je suis chef d'État. Emmanuel Macron ne me convoque pas pour que je m'explique sur un sentiment anti-français d'une frange de ma population, parce que Éric Zemmour et Marine Le Pen font pire mhm. tous les jours sur les plateaux. Mhm. Et ce sentiment euh, anti-français euh, qui, qui, qui, qui, grandit, on, on, peut le dire quand même, dans, dans, dans certains pays. Euh, en, en, Afrique. Euh, on a vu un peu sur les réseaux, certains ont, sont allés jusqu'à même demander l'élection de, de, carrément de Marine Le Pen. Comment vous regardez ces, ces, ces, ces deux visions Mais c'est normal. Moi, je crois que les Africains, ils, ont ras bol mm. La jeunesse, surtout, s'est pour dire simplement sa ça cesse. On ne peut pas continuer tout le temps à nous prendre par la main, à nous conduire comme si on était des, des enfants, toujours, euh, qu'il faut éduquer, qu'il faut civiliser, comme ils le disent. Et on a besoin d'une autonomie, on a besoin d'être libre, on a besoin de gouverner pour nous-mêmes et par nous-mêmes. on ne peut pas comprendre à chaque fois qu'il y ait des orientations, qu'on se mette à dire mais c'est la France d'abord qui décide ou la France convoque et même euh, pire. Le fait de changer de paradigme continue à montrer simplement la mauvaise foi. Mais il y a eu quand même des avancées, notamment sur le CFA. Euh, oui, mais ces avancées, c'est limite, hein, c'est oui. limite, limite parce que par, par rapport à ce que nous demandons, ce que nous exigeons, c'est que vraiment qu'on ait une souveraineté monétaire en bonne et due forme. Oui, mais euh, euh la réélection éventuelle d'Emmanuel Macron, euh, est-ce que ça veut dire le statu quo, la continuité mmh. dans la politique africaine de la France Ou euh, pensez-vous que cette élection va quand même marquer, à défaut d'un tournant, en tout cas infléchir un peu cette politique euh, va... sous l'influence justement de la campagne de, de, de, Marine Le Pen et de la campagne en général de tous les candidats. En, en écoutant Macron parler, on comprend qu'il qu veut vraiment changer les choses. Mmh. Il a envie de les changer. Mais euh, ce n'est pas une histoire de discours, ce sont des actes qu'il faut poser. C'est un comportement qu'il faut avoir qui montre qu'on respecte son vis-à-vis, qu'on qu a, qu'on a une oreille attentive aux attentes de son vis-à-vis. -vis. Le vis-à-vis, c'est l'Afrique, c'est le Sénégal en particulier. On a besoin d'un rapport qui est équilibré. Hein? Le professeur l'a dit, on ne peut pas continuer à nous traiter comme des moins que rien quand il faut décider pour nous. Quand il faut décider pour nous, il faut qu'on nous écoute et qu'on accepte quand même de, de, prendre en charge ou de, de comprendre ou d'accepter ce que, ce que nous, nous voulons, mais pas ce que eux, ils décident qu'il faut que cela soit. Parce que le problème qui se pose, c'est l'orientation même des investissements. Des, des, décisions comme le fonds pour, euh, pour la démocratie en Afrique, euh, qui a été, le, le fonds qui a été décidé lors du sommet de Montpellier. Oui. Par exemple. Il dit qu'il s'achance. Avec la société civile africaine et non pas avec euh, les. Tout à fait. On, ne traite plus avec. Les décideurs. Voilà, on ne traite plus avec chose. les décideurs, avec les, les dirigeants. Maintenant, c'est la société civile qui est au devant de la scène. Mais tout cela, pour moi, c'est du folklore. Moi, moi, je pense que même si ça doit passer par les dirigeants, oui. l'essentiel, c'est que aujourd'hui qu'on puisse accepter d'écouter le peuple africain et le peuple sénégalais en particulier par rapport à ses attentes en termes euh, d'investissement, en termes de, de, développement, parce que le développement, c'est un état d'esprit, c'est vrai, mais il faut quand même qu'on touche du doigt le véritable problème. En, en, même temps, le président Macron est quand même dans, dans, ce, dans, cette démarche de changement de paradigme. Je veux dire, sa première rencontre, euh, en tout cas son premier sommet important en Afrique, c'était à Ouagadougou. Euh, Madame, Madame Sow le, le, rappelait tout à l'heure. Il y a eu aussi également cette euh, rencontre à Montpellier qui a été décriée, mais quand même, c'était une autre façon de, de rencontrer l'Afrique. Tout à fait. Ça aussi, c'est pas quelque chose à, à exclure. Euh, non, c'est important. C'est important. Oui. C'est un grand pas en avant. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a quelque chose qui bouge, mais au moins, il faut qu'on implique davantage l'Afrique et que ça ne se passe pas en, en, France, mais que ça se passe chez nous. Si on doit penser pour chez nous, on doit être chez nous. C'est ça la réalité. Pour ne pas rester de l'autre côté et penser pour chez nous. Hein, inviter les gens et leur demander de parler, et puis après leur faire comprendre qu'effectivement on va dans ce sens-là. Mais on va dans ce sens en posant quel acte Comme euh, le professeur l'a dit, sanctionner le Mali euh, participer à sanctionner le Mali parce mmh. que on a la France a participé à sanctionner le Mali et ça ça pose problème on ne peut pas étouffer un peuple qui a envie de liberté mmh. on peut pas demander à un peuple de se taire alors que le peuple souffre et ça à mon avis je pense qu'il est important que les Français comprennent aujourd'hui que nous voulons une nouvelle relation c'est ça c'est une nouvelle relation que nous voulons. Madame Sow, sur ce point, sur cette politique euh, euh africaine nouvelle, euh, réclamée euh, dans le continent Non, mais on l'a dit, c'est sous cette, la mandature de ce président que le franc CFA est mort. Mmh. Ça a été impulsé, c'est vrai, par les les pays euh, africains, enfin, mais en tout cas, ça a été entériné. <laughs> oui. Mais on, on, va dire les choses comme ça, oui. et ça a été entériné par une loi en France en 2021. Oui. C'est acté. Je crois que ce président a hâte d'avoir en face de lui une, une Afrique nouvelle qui se développe économiquement. C'est quelqu'un, je le rappelle, ça quelques années euh, dans le paysage politique français. C'est quelqu'un qui, est, euh, arrive du milieu des affaires, des banques, ça a été suffisamment dit. C'est quelqu'un qui comprend l'aspect économique et qui comprend l'intérêt d'avoir une relation économique forte avec un partenaire fort que sera l'Afrique d'aujourd'hui et celle qu'elle sera demain, parce que la France et l'Afrique, et je l'ai dit encore euh, Euh, ont des relations historiques. Donc l'intérêt de la France, c'est d'avoir maintenant un, un, un, une relation avec un partenaire très fort. Bien sûr. Et ça, c'est quelqu'un qui arrive des affaires, le comprend mieux que tous ceux qui ont fait de la politique et qui, euh, euh, et qui n'ont pas vu cet aspect de l'Afrique qu'il faut maintenant développer. Et c'est quelqu'un qui a envie, euh, vraiment à cœur, de développer ce, cela. Il le dit à chaque fois et je, je, vois que ça fait sourire, mais oui. c'est vraiment quelque chose sur lequel ah. il faut euh, lui accorder du crédit oui. et, et, se dire surtout qu'en 5 ans, il n'a peut-être pas pu faire tout ce qu'il avait prévu de faire euh, euh lorsqu'il est venu à, à Ouagadougou, mm. mais c'est un président qui a eu à affronter trois crises successives en France, oui. la crise des Gilets jaunes, et, on a vu que ce euh, regain euh, ouais. de révolution est allé alimenter euh, le, les insoumis, bien sûr. Et c'est pas forcément, je le dis encore une fois, pas forcément une adhésion aux éléments programmatiques de Jean-Luc Mélenchon, mais une volonté de révolution. Parce que c'est toute la crise de la politique, et là ça touche non seulement la France, mais au-delà,

la, la majorité des, des, des, des, hommes et des femmes politiques Politique. de notre pays. Ouais. Et ça, ça nous a fait du bien. Et on a vu de nouvelles personnes arriver, pas force, et, et, des anciennes aussi euh, se maintenir, mais ça a fait une équipe intéressante. Alors, dans six minutes. Mais il a eu trois euh, crises ouais. les Gilets jaunes, la crise Covid et aujourd'hui la crise ukrainienne. Moi, j'ai hâte de voir quels seront maintenant les actes qui vont être posés dans cette relation France-Afrique, ah. dans ce nouveau quinquennat que nous appelons de nos vœux et que j'espère sera annoncé dans quelques secondes. Professeur Poumon, vous voulez ajouter quelque oui. talent, c'est un fait. Euh, pas seulement dans la finance d'ailleurs, il vient de Sciences Po, de l'ENA, mm -hmm. de la Banque Rothschild, et c'est quelqu'un qui a compris mieux que quiconque que la politique avait d'abord une dimension de communication politique. C'est un fait. Madame, on vous laisser dire que le franc CFA est terminé. Ah, Emmanuel Macron a du talent, S'il est réélu, ça va être sans doute le premier à l'être hors cohabitation sous la cinquième depuis très très longtemps. Donc c'est oui. une prouesse. Hein. Oui. On est à quelques minutes de le savoir. Mais c'est le président de la France. Il défend les intérêts de la France. Mais rien de plus normal à dire cela. Oui, <laughs> mais, heureusement. Et, et donc ça va mieux en le disant. Oui. Et donc, euh, contrairement à ce que vous venez de dire, le franc CFA n'est pas mort. Non, Emmanuel Macron a torpillé mm-hmm. euh, le projet africain de monnaie euh, de notre de la CEDEAO, l'ECO, mmh. hein, mmh. contournant la CEDEAO, uh-huh. utilisant l'UMOA avec un autre excellent financier, le <laughs> président de la Côte d'Ivoire. Ouais. Hein, donc vous pouvez pas dire que est mort. sa, mort a été actée. Le processus euh, monétaire doit se mettre en place. Vous avez raison. il défend les intérêts français. Bien défendre les intérêts africains. Eh c'est ce que j'allais lui répondre. l'arbitrage de l'économiste, justement. c'est tellement simple. il l'a dit le professeur, il a contourné la réalité pendant des années. on a préparé la zone monétaire de la CEDEAO. Oui. On a travaillé là-dessus. On a convaincu les pays anglo-saxons membres de la CEDEAO que qu'une monnaie unique était quelque chose de fabuleux, quelque chose de bien pour nos économies, hein, que ça allait soutenir nos économies. Mais in fine, qu'est-ce qu'on constate le avec des présidents oui. qu'ils comprennent mieux que quiconque ce que doit être une monnaie pour... Euh, une communauté, ce que doit être une monnaie pour un peuple. Mais la liberté d'un peuple, c'est de pouvoir vraiment définir son pouvoir d'achat à travers une monnaie. Mmh. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Malheureusement, euh, c'est avec lui et moi encore que tout se passe, ce qui est dommage. Donc le franc CFA, c'est pour encore demain. Hein. Je ne dis pas pour aujourd'hui, c'est pour encore demain parce que le jeu n'est pas fini puisque les pays anglo-saxons se sont retirés en ce moment. en attendant de voir, puisque on dit que l'éco va être euh, appliqué par euh, les huit pays de l'UEMOA en attendant de voir un peu comment ça va se passer. Puis ensuite, les autres vont intégrer au fur et à mesure. Mais les autres ne vont pas intégrer. Moi, à mon humble avis, les autres pays ne vont pas intégrer. Mmh. Euh, c'est une autre forme du franc CFA, l'éco, puisqu'il s'agit bien d'une dévaluation du franc CFA. Mmh. Hein, on va passer à une dévaluation du franc CFA. Un éco, un euro va être égal à 1200 échos. 1200 échos. Voilà ce qui va se passer. Et si, entre-temps, le pouvoir d'achat des populations n'a pas bougé, donc rassurez-vous, les produits importés vont coûter plus cher. Et malheureusement, comme on importe plus qu'on exporte, logiquement, on va encore être vraiment dans, dans des difficultés liées à... Ce qui est étonnant, c'est ces questions qui me semblent essentielles, même dans la vie politique intérieure de la France oui. n'ait pas été évoquée à la mesure de leur importance euh, dans l'agenda oui. justement politique euh, de ce pays et de nos pays ici. Mais j'ajoute, je suis étonné que les pays africains, si enclins à soutenir les régimes en place par diverses manières, y compris par des interventions financières, des, du lobbying intense, euh, n'est pas pesé de tout leur poids dans la campagne électorale et dans le débat politique sur ces, ces, ces questions. Et c'est tout l'intérêt de notre plateau. Nous ne nous intéressons pas forcément à la politique franco-française. C'est le lien avec l'Afrique et l'importance de cette oui. élection pour nos pays qui justifie euh, qu'on soit ensemble. au second plan. Oui. Dans Parce qu'on n'a pas fait tout ce qui était nécessaire. Justement, quand la Russie veut peser sur les élections aux États-Unis, y mm. compris en France aussi, euh, la Russie fait ce qu'il faut euh, par des moyens peu orthodoxes. Mais il y a des moyens orthodoxes d'influer sur la décision, sur les débats à tout le moins. Euh, et c'est pas forcément oui. ce que le plus que les pays africains. Je, je partage cet avis et il faut s'intéresser à la politique française et la critiquer. Mhm. Sans complaisance, Absolument. moi c'est moi qui vous le dis, il faut la critiquer sans complaisance et être dans une logique de construction et pas de rejet. Parce qu'être dans une logique de rejet ne, bénéficie pas mhm. euh, aux pays africains. Et pas réaliste, une telle interdépendance entre nos pays, nos économies en particulier. Mais il y a un capital humain important <laughs> entre, ces, deux espaces euh, qu'il ne faut pas passer les liens culturels, euh, Et, la France reste un partenaire important, un gros investisseur au, au Sénégal, rappelons-le le, tout, tout, tout, de même. dernier moment de suspense avant de connaître euh, le président ou la présidente euh, de la France. Euh, en tout cas, on est presque, il est 20h, hein, on va découvrir

Euh, de l'électorat, mais ça n'a pas suffi manifestement pour, euh, renverser, euh, pour renverser, Emmanuel Macron. Vos, votre première. Euh... Non, mais je me, je me, réjouis de voir ce président qui est, à qui on, on, on, renouvelle la confiance pour encore 5 ans. Je crois qu'il a mené des, des, réformes importantes. On a vu le taux de chômage euh, baisser à 7%. Il promet le plein emploi à la fin de son quinquennat. Oui. Euh, c'est des signes encourageants et ça, c'est des choses sur lesquelles les Français, je crois, ont souhaité Euh, montrer qu'ils étaient satisfaits de son travail et, et lui, lui, accorder encore une confiance pour 5 ans. Mhm. Euh, Marine Le Pen a gagné des points, on le dit depuis tout à l'heure, sur cette question du pouvoir d'achat. Oui. Euh, nous appelle, au vu de ces résultats, effectivement, à à, à redoubler d'efforts, d'une part en communiquant davantage mmh. sur toutes les mesures qui ont été prises pendant ce quinquennat pour soutenir le, le pouvoir d'achat oui. et surtout en faveur de l'emploi. Parce qu'on ne peut pas parler de, de, de, de pouvoir d'achat pour des gens qui n'ont pas d'emploi. La première des batailles et la bataille de l'emploi. Donc mmh. ça, c'est quelque chose qu'il faut le mettre à son crédit. Et puis j'ai hâte de voir euh, maintenant euh, les actes qui seront posés, puisque c'est notre environnement aujourd'hui, en termes de relations internationales, Internationale, euh, notamment, notamment, avec, avec le continent africain. Euh, j'ai hâte de voir ce qui sera fait. Rapide tour de table, mais tout de même s'arrêter sur cette réélection, ouais. parce qu'on on, l'oublie, vous l'avez vous avez rappelé tout à l'heure, les crises euh, en France, les ouais. gilets jaunes, ouais. un an de contestation. Mais in fine, Macron est réélu. Qu'est-ce que ça dit de, la politique euh, française bah, Ça dit surtout, euh, surtout, sa capacité à entendre. Il a su donner des réponses à des problématiques qui ont été euh, portées, euh, vous l'avez dit, dans la rue pendant de, manière très forte et, non équivoque par, nos concitoyens. Il a su y répondre et les chiffres économiques sont là pour mm. montrer que Euh, le pouvoir d'achat est renforcé, même si effectivement en termes de ressenti, ça n'est pas toujours le cas. Donc il faut, en termes de communication euh, politique, renforcer les choses, et ça c'est une crise à laquelle il faut qu'on s'attelle, nous en tant que militants, qu'on soit dans l'Hexagone ou, euh, ou d'ici du Sénégal où je vous parle, nous avons une section La République en marche Sénégal, oui. et encore les mesures, les orientations et euh, les axes qui seront fixés par le président de la République. réaction à l'extrême gauche de la table, euh, <laughs> Emmanuel Macron réélu, quelle est votre réaction et quelles sont les attentes pour, euh, pour l'Afrique Extrême gauche de la table. De la table. Une <laughs> Les, les, extrêmes, <laughs> un plus équilibrés. Exactement. juste deux chiffres. 58% et le taux d'abstention. Mmh. Euh, il est exceptionnellement doué, employé. Là où la plupart, pour ne pas dire tous les chefs présidents de la 5e République française oh, échoué. ont échoué. Donc, que Macron ait du talent politique, c'est un fait. Mmh. Alors ça, c'est le premier chiffre. L'autre, le pense que c'est le plus depuis combien d'années, madame Je pense 2002. Depuis en au moment de, ouais. où... Euh,

En 2007, Nicolas Sarkozy est élu sur l'identité nationale. Ouais. Euh, Chirac, c'était sur la fracture sociale, ouais. euh, etc. Maintenant, on a des Zemmour.

un vrai chef de guerre. C'est-à-dire que c'est la Ve République qui est ainsi conçue. Euh, Macron a quelque chose à la fois de Mitterrand et de De Gaulle. Et donc il est très bon dans des crises. On disait qu'il n'a pas fait campagne au premier tour parce qu'il n'en avait pas besoin. Tout à fait. Il avait juste besoin de montrer mhm. qu'il était le chef de l'État et qu'il a fait ah, plutôt pas mal. Oui, faire face aux gilets jaunes comme il l'a fait, à communication mm -hmm. s'adressait à la fois à l'intelligence et au cœur, sa position sur l'Ukraine. Non, de ce point de vue-là, effectivement, c'est un bon président. Mais je répète, madame, c'est le président de la France. Il défend les intérêts de la, la Alors, quand est-ce que nous autres, ah, ça, nous défendrons... C'est un autre <laughs> parlons des relations entre la France Le débat que vous posez est celui de euh, comment on, porte, nous, Africains, et là c'est l'Africaine qui parle, nos, intérêts. Là, c'est pour cela que je vous disais, ne défendez pas l'idée que le CFA est mort. Mhm. Emmanuel Macron a torpillé notre projet de monnaie commune. Tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est eh un excellent financier avec la complicité de notre banquier. Je crois qu'il faut se pour euh,

puis de alors c'est facile de parler après coup oui. et de dire qu'on n'est pas surpris je veux dire c'est euh, une élection de Marine Le Pen ou même un score plus important qui aurait été surprenant oui. euh, après euh, euh, sur euh, sur l'analyse du, du, du professeur euh, Khouma je, je suis d'accord sur le fait que en dehors des qualités intrinsèques euh, de la personne, je pense qu'il faut tenir compte quand même du contexte dans lequel cette élection s'est produite. Et euh, Madame, euh, Madame Sow l'évoquait très bien tout à l'heure, euh, une succession de crises mhm. extrêmement graves. Absolument. Crise sanitaire, euh, crise euh, économique, sociale. Toutes sortes. Ouais. je pense que cela a eu une influence non seulement sur le choix qui a été opéré oui. entre deux choix, mhm. deux visions de la <laughs> France dans le monde et deux visions du monde, mais aussi dans le choix qui a été fait par chaque électeur. Je pense que certains ont été quand même devant un dilemme mm. et ont dû faire un choix euh, qui n'est pas forcément euh, influencé par euh, la, les, les, personnalités. Bien sûr. Euh, quoi qu'il en soit. Mm. Euh, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse moi particulièrement, c'est euh, est-ce euh, que avec le nouveau président ou le président nouvellement élu, élu de la France, oui. Emmanuel Macron, pour oui. pas le nommer, oui. l'Afrique est en face d'un meilleur président français qu'il y a quelques mois ou il y a quelques années. Et là-dessus, euh, Emmanuel Macron étant réélu, euh, je n'ai pas beaucoup trop d'espoir. Encore une fois, j'utilise la formule du statu quo hanté. Je pense que Évidemment, il, y a, il, va y avoir une réflexion sur ces questions, une réflexion, je reconnais, qui a été entamée depuis bien longtemps. Les changements qui ont été opérés ces dernières années dans la politique euh, africaine de la France euh, doivent être mis au crédit euh, d'Emmanuel de, de Macron qui encore une fois, défend les intérêts de la France. C'est-à-dire, il est entre quand même deux marges, euh, la marge de l'intérêt de la France et la marge de la nécessité de faire évoluer les choses dans le sens d'une euh, relation un peu plus, euh, pas égalitaire, mais équitable, un peu plus euh, propice euh, à l'intérêt de la France dans un contexte très troublé, marqué par euh, l'immixtion Euh, de la Russie, Absolument. dans l'espace euh, géostratégique ouais. euh, qu'on appelait le précaré, qui reste quand même le précaré euh, pour, pour dire les choses. Euh, la chasse gardée. La, pour, euh, pour, utiliser un euphémisme. Ouais. L'incursion d'autres puissances, la mhm. Chine, la Turquie, etc. Les chiffres sont parlants. Absolument. En 2020, les, les, la place de la France dans le stock des IDE, par exemple. La France comme ouais. pays investisseur. Mm -hmm. Mais a reculé. Mais regardez, énormément. Re regardez le niveau de la dette. Oui, on est quand même. Euh, et, et, et des choses qu'il faut analyser et essayer de voir. La, la comment... France est même 9e. Hein, je, Mais c'est l'entrée En termes d'investissement direct la de l'Afrique oui. dans la mondialisation. Exactement. Euh, pour vous dire l'influence de la France n'est pas question très orientée. Euh, allez-y, terminez. résumé, euh, pas trop surpris, euh, pas trop romantique par rapport à ce que sera la relation entre la France euh, et l'Afrique, et particulièrement entre la France et le Sénégal, oui. la balle est dans le camp des Africains, mmh. qui, au regard de la nouvelle situation, mmh. doivent certainement euh, redéfinir euh, leur, euh, leur, positionnement par rapport à la France en jouant de tous les leviers mm. euh, que leur offre l'influence de ce continent et de nos pays individuellement au plan géostratégique, mm. au plan économique euh, et euh, au plan politique, euh, j'entends ici politique internationale. Tout à fait, pas très romantique mais factuellement <laughs> Euh, je, là, je pose une question très orientée à, à l'économiste docteur euh, Boniface Sambou. Le président qui vient d'être élu, il est quand même le président qui a milité pour la réallocation des DTS euh, lors du sommet sur le financement des économies africaines devant le président le président Macky Sall. Mais il, il, il n'avait pas le choix. Je pense qu'à à ce stade des, des échanges, c'était un moment important et il ne voulait pas rater l'occasion de marquer l'histoire. Mmh. naturellement, il en a profité. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a mieux à faire. C'est-à-dire quoi Il faut revoir le calendrier et surtout euh, les, les, les, carnets d'orientation de, de, des, des, investissements. Sinon, on, on tournerait en rond. Parce que pour moi, il est important de d'échanger fondamentalement avec les Africains sur les enjeux économiques réels, mmh. de toucher du doigt les secteurs porteurs de valeur ajoutée et permettre aux Africains de pouvoir bouger. Mmh. Parce que naturellement, quand les investissements sont orientés ailleurs, même si on change leur, euh, leur euh, appellation, oui. mais ça ne veut rien dire. et mieux, ce qu'on nous rend nous appartient. Vous avez raison d'en parler parce qu'il y a eu une clarification sémantique également à, à Montpellier. Voilà. Euh, on ne parle plus d'aide, ça, ça c'est fini ça. Voilà. voilà. On parle d'accompagnement, d'investissement avec euh, avec euh, la société civile qui entre en jeu. Ce n'est euh, le, les, les dirigeants seulement qui doivent emploi euh, qu'il a de plus d'un million d'emplois qu'il a créé pendant son quinquennat. Oui. Par exemple, je prends l'exemple Sénégal. On nous parle de 65 000 emplois, etc. Oui. à plus à faire et mieux à faire que de, d'orienter ces investissements vers, euh, comme je l'ai dit, des secteurs qui ne sont pas porteurs. Comme lesquels, quand vous prenez, par exemple, euh, le secteur des infrastructures aujourd'hui au Sénégal, oui. on est en train de le développer. Ah, c'est très important. parce qu'on a besoin de pouvoir vraiment voir euh, un nouveau visage de chez nous. Mais encore une fois, quand, un secteur comme le secteur agricole souffre aujourd'hui, on va vers des moments très difficiles de notre pays en termes de consommation. les, les, denrées de première nécessité augmentent de plus en plus à cause de cette crise que nous, vivons actuellement. Mmh. Qu'est-ce que nous, a fait pour pouvoir euh, être au moins autonome ou résilient par rapport à ces chocs qui vont arriver à tout moment et qui ne cesseront pas naturellement Mais à mon humble la euh, là où il faut orienter les investissements, c'est d'abord des secteurs qui nous permettent d'être autonomes, oui. de, de nous libérer de cette dépendance. on est très dépendant de de de l'extérieur. L'émancipation économique euh, euh de l'Afrique et le consommer euh, local. Oui. il faut, il faut euh, si vous voulez, un patriotisme économique. Oui. Mais ça, ça dépend de, de ce qu'on a produit chez nous et qui permet aux consommateurs de pouvoir vraiment... C'est cette politique que nos dirigeants devraient porter. Tout Le président Macky qui, n'a cesse de, dire que l'Afrique est, sous-financée. Euh, euh, il a dit sur, les, sur les scènes internationales. Euh, sur ce plan, euh, Madame So, qu'est-ce qui, qu qui, peut être fait concrètement dans, ce, nouvel... Je, de nouvelles politiques qui sont impulsées au niveau du Sénégal Sénégal. Et là, c'est un autre débat, mais je veux bien aborder cette question. Je crois que pour parler de la politique industrielle, je fais plus confiance à la nouvelle politique industrielle du Sénégal, euh, qui est euh, en train d'être euh, mise en place. Euh, pour développer le Sénégal que de, le regarder vis-à-vis d'un investissement ou d'une coopération étrangère mmh. ou d'une entité étrangère comme la France. Mmh. Je crois que ce qu'il faut rappeler ici, c'est que le, le, Sénégal est souverain depuis et qu'il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on est en capacité de développer un certain nombre de politiques, que ce soit industrielles ou dans d'autres secteurs. Mmh. Euh, je crois qu'il faut regarder plutôt ce qui est accompli, et la construction de, de, de l'État sénégalais, de sa, son entrée son entrée pleine et entière dans la mondialisation, ça a été rappelé tout à l'heure. L'influence de la France est en recul, c'est quelque chose d'indéniable. Donc c'est ce qu'il faut regarder et je crois que les choses se mettent en place sans impatience, mais de façon constructive et et faire confiance aux dignitaires sénégalais pour défendre euh, le pays, je le répète. Le, le besoin en tout cas des financements euh, en Afrique d'ici 2025 euh, tourne de 300 milliards de dollars euh, d'ici 2025. Là, on est encore loin Euh, professeur Rouma, euh, quelle est votre réaction sur euh, cette nécessité de, ouais. de diversifier les, relations et, partenariat. Et je pense que les, les deux parties le, le, le comprennent. Tout à fait. Euh, tout la à relation fait. ne peut pas rester ce qu'elle était. Euh, je suis complètement d'accord avec ce que disait Suleiman. Pas de, pas de romantisme. Mmh. on disait est-ce que la relation sera meilleure une fois que Macron est réélu Évidemment que c'est pragmatisme et du réalisme. Emmanuel Macron est très pragmatique et très nos relations avec la France seront ce que les Africains en feront oh, aussi. donc cette diversification du partenariat, je veux dire, parler de la République en marche, c'est le monde qui, qui, qui est ainsi en marche. Bien évidemment que la France est encore un partenaire privilégié, mais vous avez la Chine, vous avez les pays du Golfe, maintenant avec pétrole et notre gaz, vous avez même des Britanniques, des Australiens, vous évoquez la Turquie, etc. Mais en France même, dans les écoles de commerce, ben, tout le monde se jette pour apprendre le mandarin, pour avoir des relations avec la Chine. Est-ce qu'on veut mm-hmm. nous empêcher, mm-hmm. dans ces conditions-là, d'avoir aussi des partenariats privilégiés Non, donc je pense que aussi bien la France que les pays africains le comprennent, euh, la relation, je veux dire, euh, euh comment dire, euh, ce joug-là va s'étirer et avec le temps. Euh, mm. un exemple, les présidents dont nous parlons sont nés après les indépendances. Mm. euh, les leaders africains aujourd'hui, la plupart n'ont pas fait leurs humanités en France, mm. contrairement à il y a encore quelques. Donc, de ce seul fait, le lien va se distendre. Euh, il existera encore, mais très progressivement, dans l'intérêt compris de tout un chacun, euh, chacun défend d'abord ses intérêts et les partenariats vont, vont, se diversifier. Ça ne veut pas dire que c'est un rejet, etc. Ça veut simplement dire que c'est de la euh, même manière que la France divers. Mais vu que la crise en Ukraine a capté toute l'attention des Occidentaux, on en a oublié ce qui se passe chez nous, au Sahel. Eh bien, qui va s'en occuper Et ce qui est dramatique. Nous, oui, mais nous autres. Donc c'est ça la réalité euh, du monde aussi. personne ne nous fera le grief de, diverser, de diversifier notre partenariat. Donc, aucun romantisme, la relation entre la France et les pays africains euh, sera ce que les Africains en feront aussi. avec un président français qui a une expérience justement de cette relation. Voilà pourquoi peut-être euh, un éventuel, une hypothétique... Euh, euh, une hypothétique réelle élection, élection première de élection de Marine Le Pen aurait été une aventure de ce point de vue-là. Là, on est dans, dans sur, sur, euh, un périmètre connu, nous savons comment justement nos États peuvent, sur la base de ce qui est fait. Mais il ne faut pas quand même oublier que dans le cas précis du Sénégal, la France est le premier, part... le premier partenaire quand même de ce, de ce, pays, même si en importance relative, euh, cette influence a baissé. passe de 78% quand même du stock des IDE euh, à 30% maintenant. Mm. Malgré tout, la France le premier investisseur en tant que pays euh, Sénégal. On est aussi, la France est également le, le premier partenaire commercial, mm. même si c'est euh, une des asymétrique euh, euh, a beaucoup d'importations et très peu d'exportations. J'évoque ces pour dire à l'appui de ce que dit le professeur Rouma. Euh, où, où sont les leviers euh, qu'on doit activer C'est plus de dynamisme dans notre relation commerciale. Mmh. dans le sens de rééquilibrer. Mmh. Ça, c'est pas la France. La France ne va pas euh, nous, nous, aider à mieux exporter mmh. sur son territoire. C'est à nous de le faire. Mhm. Euh, la France, premier partenaire, premier investisseur, c'est comment on tire euh, le meilleur justement de cette relation, euh, stimuler beaucoup plus d'investissement, euh, justement sans tomber, euh, j'entends bien hein, le, le sous-entendu, mm. sans tomber dans l'autre extrême du rejet total. Merci. C'est mm. comment, jouant de la réalité telle qu'elle existe, on peut optimiser notre place justement dans cette relation avoir plus d'investissements. Les investissements ont aussi parce qu'il y a eu euh, les A320 Néo, e oui. il a eu euh, beaucoup d'achats importants les, euh, des, infrastructures euh, dans lesquelles euh, la France a, a investi entre 2017 et 2019. Donc en 2020, c'est normal que ça baisse un tout petit peu. Mais oui. ce que de voir profiter de l'expérience mm. africaine mm. du président réélu de la France, Emmanuel Macron en l'occurrence, mm. le connaissant mieux, euh, comment on peut tirer meilleur profit pour euh, justement, c'est pas lui seul oui. qui va déterminer, même si dans l'attribution des, des, des, prérogatives, des compétences, oui. le chef de l'État français, ce sont des euh, domaines réservés, euh, la, la, diplomatie, euh, etc. Mais les relations internationales, le commerce international, il y a beaucoup d'autres acteurs, y compris l'Assemblée nationale, y compris les grandes administrations dans ce domaine-là. Euh, et le travail peut se faire justement en utilisant cette alliance naturelle qu'il y a entre l'Afrique et ce président jeune qui comprend bien euh, les enjeux du moment, euh, qui est sous l'influence d'un certain nombre de choses. Et ce sont ces choses-là qu'on doit maîtriser, nous, pour réellement l'influencer, pour que lui-même influence ses administrations, les autres, les autres institutions de la République française, mmh. dans le sens de rééquilibrer. C'est un débat à poser. Et je trouve dommage que le débat ne soit pas, n'ait pas été suffisamment posé durant la campagne électorale. Mais ce n'est pas le seul espace où ce débat peut se poser. Il a mis en place des structures hein, mm. euh, où euh, les Africains sont représentés, mm-hmm. la jeunesse, où on discute. On ne parle pas de rien. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses, euh, y compris des feuilles de route entre la France et des gouvernements individuels de nos pays africains sur des durées assez conséquentes pour voir comment doit justement, c'est dans ces espaces-là, c'est dans ces cadres-là qu'il faut continuer à influencer. Mmh. Donc, euh, cette élection ne nous est pas complètement étrangère, contrairement à ce que certains peuvent penser. Mhm. Elle est très importante pour la suite, mhm. pour l'avenir de cette relation, mais euh, il faut connaître ses alliés. Et c'est important que ce soit un président qu'on connaît un tant soit peu, mmh. qui connaît un tant soit peu l'Afrique et nos pays. Mmh. Et ah, à notre tour maintenant, de tirer profit euh, de cette connaissance. Juste avant, avant de vous donner la parole, euh, Madame Fatou oui, Sagnasso, j'interroge quand même le, le professeur euh, euh j'interroge le, le, le, spécialiste des relations internationales sur, sur la dichotomie qu'il y a aujourd'hui entre euh, la société civile africaine, donc cette jeunesse qui veut clairement couper le cordon ombilical entre l'Afrique et, euh, et le... Alors, on me dit que Jean-Luc Mélenchon est en train de s'exprimer, on va l'écouter et on va continuer débat. Les personnes prises à la gorge financièrement et qui ne verront pas les prix être bloqués. Les personnes qui savent à quel point l'inaction écologique de M. Macron est un crime. Les personnes qui voient avec tristesse l'État détruit et le pays vendu à la découpe. À toutes et à tous, je dis Ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action, franchement, massivement. La de changer de cap. Le troisième tour commence ce Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives.

qui s'est constituée autour de ma candidature à l'élection présidentielle est dans ce le tiers État qui peut Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme ministre, je vous appelle à un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Courage, action, détermination, refus toujours de la fatalité et de la résignation. Vive la France, vive la République. Voilà, c'est Jean-Luc Mélenchon qui vient de s'exprimer.

avez raté. Civil de, de notre qui a qui, comment comment euh, euh, euh, comment dire comment euh, comment euh, faire pour que ces deux parties s'entendent parce que pour le moment on ne s'entend pas entre les, les personnes qui nous gouvernent et, et, et, les, les, et, la jeunesse africaine et la société civile de façon générale. C'est pas spécifique à l'Afrique. Le, le, le, débat français, c'était le candidat de l'élite contre le candidat du peuple. Et les populismes, c'est une question absolument universelle. Et, et, et, c'est c'en est, est presque angoissant. Comment réconcilier ces deux parties C'était ça ma, ma question. J'y viens. C'est-à-dire oui. que, euh, un peu comme l'impression si les peuples, les sociétés civiles ont envie de décapiter leurs élites. Oui. Quand on reprochait à Emmanuel Macron, euh, les Français n'aiment pas les premiers de la classe, mais c'est devenu presque euh, universel ce mmh. travers très français-là. Mmh. Et, et, et, et, tous les populismes, un peu partout au monde, hein, euh, ont prospéré un peu sur cette base. Ça a donné des, des discours assez démagogiques. et et, et, la démocratie est en danger de ce point de vue-là. Et votre question est particulièrement intéressante euh, vue d'Afrique. Cette déconnexion qu'il y a entre la société civile, comme vous dites, le peuple euh, et les élites. Euh, parce que si on ramène ça aux relations entre, par exemple, la France et l'Afrique, euh, les populations ont l'impression que ceux qui profitent de ce partenariat privilégié-là, c'est d'abord les élites. C'est d'abord le gratin. Bien évidemment. Ils sont capables d'aller étudier dans les meilleures écoles euh, à Paris et de se soigner dans les meilleurs hôpitaux. Et donc, à hmm. la masse laborieuse, etc. est-ce vrai, est-ce faux En tout cas, voilà un peu ce qui fait le lit. et dans un pays comme le nôtre, qui est de la Teranga, hmm. quand vous en arrivez à voir des mouvements euh, qui se dénomme France Dégage, oui. ça interpelle. Pourquoi Mais ça, ça ramène à, à, à, cette interrogation fondamentale que vous disiez, cette déconnexion qu'il y a un peu entre les élites

là où je vous disais c'est la marche du monde, c'est que de plus en plus nos propres élites africaines pardonnez la tautologie, s'africanisent. Mmh. Hein, nés après les indépendances, ayant moins fait leurs humanités à Paris, euh, voilà, un peu moins euh, nostalgique un peu de tout cela, mmh. des relations, disons-le, plus décomplexées. Oui. Alors, oui. il peut en sortir le meilleur comme le pire. Oui. Euh, le meilleur, ce serait une normalisation. C'est-à-dire pas de sentiment de rejet. Le pire serait de part et d'autre des lignes de fracture euh, euh, euh, comme ça. Et ça rejoint exactement ce que euh, disait Suleiman, c'est-à-dire que maintenant que Emmanuel Macron est élu, qu'il connaît l'Afrique, les Africains le connaissent, oui. Euh, comment optimiser cette alliance stratégique Il a tenté, c'est-à-dire en s'adressant à la société civile, en court-circuitant peut-être les leaders politiques. Mais seulement, il y, y, a eu le grommellement des élites hein, euh, qui n'ont pas vraiment euh, aimé ah, cette, cette, cette, liaison directe entre le président de la France euh, et la, la, jeunesse africaine. Euh, sur ce point précis, docteur Boniface Sambou. Mais logiquement, il a compris, le président, que l'élite a failli à sa mission. il l'a compris. Moi, mon noble avis, il ne peut pas leur adresser la parole directement. C'est le... votre sentiment Mais c'est mon sentiment. Il a compris quelque part qu'on ne peut plus se résumer à discuter avec cette élite, à communiquer avec cette élite pour que cette élite puisse prendre en charge les préoccupations des populations. Oui. Pour moi, il faut impliquer la frange la plus sensible, cette jeunesse-là. Si on arrive à la canaliser, si on arrive à l'avoir dans euh, ces, ces échanges, je pense qu'on gagnerait mieux parce que c'est le futur de l'Afrique. C'est avec elle qu'il faudra discuter de la démocratie Bien sûr, parce que et, elle a bien compris aujourd'hui que l'élite n'a pas joué l'échec depuis longtemps, mmh. que l'élite s'est accrochée à des faveurs, à, à une logique euh, de, de pouvoir qui ne finit jamais, mais qu'il faut casser. Il faut une rupture. Moi, je, je suis d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait euh, euh, une cassure du genre, allez, voir ailleurs, nous, nous, aussi, on va, on va gérer notre, notre quotidien. Ce n'est pas cela. Oui. Il faut un renouveau, il faut un changement. Maintenant, orienté vers nos préoccupations, parce que ils ne sont pas chez nous pour voir dans quelle situation nous sommes. On, on, leur donne une image de ce que nous vivons chez nous. Mmh. Moi, je prends l'exemple de l'éducation qui souffre aujourd'hui, où, logiquement, si on avait euh, suivi les réformes mise en place, si on avait appliqué tout ce qu'il fallait et injecté réellement mmh. les, les, les, investissements idoines, on aurait peut-être un niveau d'éducation beaucoup plus intéressant parce mmh. que ce qui se pose comme problème, c'est que la jeunesse est mal formée. Très bien. Et ça, ça va, euh, ça va nous rattraper plus tard. Mmh. Parce qu'on a besoin de capital humain. Quand oui. on parle de capital humain pour développer un peuple, un pays ou une, euh, une, une nation, un continent, oui. il faut quand même qu'il soit bien formé. Ce il, il, nous reste dix petites minutes avant de rendre l'antenne. La parole au vainqueur quand même ce soir, <laughs> euh, Madame la coordinatrice de, de, la République En Marche au, au Sénégal. Alors, euh, vu, vu, de la scène, tout ça, comment selon vous euh, on devrait... repenser, remodeler, euh, le modèle, comme on dit, euh, en, la France euh, et, et, de façon générale ben, Déjà, euh, l'a annoncé, la bataille des législatives est lancée. Mmh. Et je rappelle qu'en à peine 10 euh, personnes, 10 députés euh, qui étaient, comme on dit, de l'immigration. Sous, en 2017, ils étaient 35 Euh, à être élu euh, sous la, la, bannière de la République en marche. Et ça, pour nous, de la diaspora qui, euh, avons, qui sommes nés en France, qui avons grandi là-bas, c'est des avancées qu'on n'a pas eues sous le Parti socialiste d'où est issu, Monsieur Mélenchon. Mm. On a eu beaucoup de promesses pendant des années. C'est sous Emmanuel Macron qu'on a vu ces avancées claires. Mm. Donc on va se battre pour avoir des législatives où la France, dans toute sa diversité, sera beaucoup plus représentée.

encore, euh, ce siège reste dans la majorité présidentielle. Et que les préoccupations africaines euh, soient prises en, compte euh, nécessairement prises en compte, ou en tout cas mieux appréhendées, si les dignitaires français, je vous dis, sont des personnalités qui comprennent l'Afrique. Sans se faire des films Que ce soit non plus, des personnes... petit à petit, il l'a dit, il faut du temps. Mais les avancées, c'est aussi un capital humain qui est éduqué, mais qui aussi apprend à connaître euh, l'autre. Mmh. Et ça, c'est fondamental dans une relation, c'est la connaissance qu'on a de son partenaire en, oui. en, en affaires, puisqu'il n'y a plus de romantisme ni de haine, en affaires. Euh, c'est un, un, un, élément fondamental que la connaissance de l'autre. Oui. Donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a tout à gagner aujourd'hui pour l'Afrique d'entrer dans, un, dans une relation économique saine et pragmatique oui. avec une France qu'on connaît bien. Parce qu'un partenaire qu'on connaît bien, c'est de l'or. Tout en étant plus d'échanges, c'est plus de visas, euh, que bien naturellement l'intention a déjà été affirmée. Les visas talent, euh, voilà, beaucoup plus de euh, d'échange, mmh. pour, pour, mieux se connaître, mieux connaître les environnements des uns et des autres, et plus d'honnêteté dans la relation. En fait, euh, pour revenir à la question que vous avez évoquée tout à l'heure, de cette rupture, de ce fossé qui s'élargit entre les élites et euh, la société civile, enfin, euh, le reste de la population, oui. Euh, accélérée par des phénomènes, euh, je veux dire, on ne peut pas ne pas parler du rôle accélérateur de des médias sociaux euh, de oui. de l'espace numérique mhm. euh, dans la propagation des obscurantismes mhm. mais aussi des populismes etc. c'est il y a tout un travail à faire un travail d'explication dans un sens et dans un autre. Il faut reconnaître ici que la France, de son côté, toutes les informations qu'on peut avoir sur cette relation, 90% de ces informations sont dans des espaces ouverts. Vous euh, des ministères, des administrations françaises, vous avez tout. La France ne s'en cache pas, mmh. y compris de sa stratégie de conquête de parts de marché, de livres blancs, etc. C'est chez nous qu'il y a ces cachotteries, mmh. euh, ce secret qui est devenu euh, ah, historique, etc. Il faut régler ces problèmes pour apaiser cette relation. Mmh. Parce que plus on se connaît, plus on a d'informations, non seulement pour les élites, mais pour le reste de la population. Il faut que les gens soient au courant mm. de ce pourquoi on a la France comme premier partenaire. Pourquoi on achète plus français qu'autre chose oui. Pourquoi, euh, pour construire notre terre, il y a une logique derrière. Il a fallu prendre un consortium ah, français. La France euh... produit des biens et des services et a vocation à les vendre à l'intérieur et à l'extérieur de son marché mmh. et fera tout pour vendre sur tous les marchés possibles puisqu'elle est en concurrence avec d'autres fournisseurs. Absolument. Nous, nous sommes acheteurs plus que vendeurs. Mais alors, la France est dans son rôle. En tant qu'acheteur, on peut avoir quand même même un pouvoir de négociation en divertissant nos sources d'approvisionnement, en parlant les yeux dans les yeux avec nos fournisseurs, en ne donnant pas l'impression qu'on nous fourgue des choses presque par force. Et ça, ce sont les populismes qui accélèrent ce discours-là, mm-hmm. qui l'amplifient. Euh, Il y a donc un travail à faire de transparence, de bonne gouvernance, euh, d'apaisement un peu de cette relation et de discours véridique vis-à-vis -vis de tous les destinataires, les élites bien naturellement, les personnes qui ont eu la chance d'aller à l'école, de pouvoir comprendre un certain nombre de choses, notamment dans les relations internationales, mais aussi pour les citoyens lambda qui sont euh, malheureusement un peu vulnérables mm-hmm. par rapport euh, à des discours haineux, à euh, des populismes, à des mensonges aussi, hein, mm-hmm. aux fausses à nouvelles, à, aux fake news, Absolument. etc. Mm-hmm. ce point, sur ce besoin de, transparence, professeur Rouma Complètement d'accord, ça, rejoint la normalisation des relations dont on parlait, les questions de transparence, de respect Autrement, on parlait des populismes et de l'obscurantisme, c'est ce qui crée tout ça. Je veux dire, il faut mettre les choses sur la table. Et un des bons points de, de, de, de cette élection, félicitations madame, je vous ai beaucoup provoqué, mais c'est parce que vous jouez beaucoup à vous faire peur et à faire le jeu. mais, vous avez vu le respect qu'ils ont eu pour l'électeur lors du débat du deuxième tour, ils sont allés chercher les voix, c'est-à-dire c'était chiffre à l'appui, c'était pouvoir d'achat, euh, hôpital, mmh. retraite, mmh. sécurité internationale. Ça, c'est respectueux de Tout à fait. Voilà. Quelles sont vos sources quelles... et l'électeur arbitre. Absolument. Mais si vous cachez les choses, etc., vous faites le lit de l'obscurantisme et n'importe quel démagogue peut, absolument. peut, peut raconter absolument ce qu'il veut. Et donc ça, c'est une leçon aussi euh, mhm. de démocratie euh, qu'on qu doit reconnaître. Absolument. Et sur la question maintenant, comment optimiser ce partenariat, justement, euh, sur la base du respect et d'une alliance stratégique, euh, bien comprise. C'est-à-dire que la France ne doit plus sa puissance

et des jeunes de plus en plus formés. etc. Euh, il y a là un partenariat stratégique, mais qui doit être fondé sur le respect et décomplexer les choses et discuter de façon complètement transparente. Merci beaucoup, euh, professeur Ousmane Khouma, spécialiste des relations internationales. Merci beaucoup, euh, professeur, docteur Boniface Sambou, d'avoir accepté notre invitation, économiste. Et merci beaucoup à, la vainqueur. Félicitations, Félicitations Fatou Sagnasso, je le rappelle, coordinatrice de la République en marche au Sénégal. Et merci à vous, Souleymane, de m'avoir accompagné euh, merci. dans cette édition spéciale. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Pierre De Silva à la réalisation et à toute son équipe. Restez avec nous. Bon appétit pour le Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.